waxtaan bikum njiiti réew mi Macky Sall nangul na boppam ne sénégalais yi fa ñoo sonn ñàkk fa ñoo ndóol xam na ñoo xam ne bu ñu ndékkee du ñu xañ bu xañee du ñu reer ba tax mu fas yéene leen a wàllu dimbala leen ñeen fukki milliards ak ñett la leen fas a séddale léese ko yéene kaay ne loolu moom la ñuy duppee opération solidarité nationale njaboot yi ñu xayma ne ñàkk ak leen di bëgg a rey Sénégal gi te Macky war leen a dimbale ñu ngi toll ci juróomi téeméeri junney njaboot ak lu topp réew mi yéene kaay na ko wàllu taxi lu ëpp juróom benn fukki milliards moom la ci nguur gi bàyyi lépp ngir jàppale askan wi yéen a kaay mel ni kuraan ko Macky Sall président si ba nga góorgóorlu de ginnaaw boo dimbale njaboot googu ba pare fa ngaa war a wàññi dund gu cher gi lépp a yokk fi mu toll ni ci réew mi ñu ne déetawaay mbiru góor jigéen yi nga lijjanti ko nda gis nga ñaar yooyu soo moytuwut ñoo la nar a xañ élection député yi di ñëw sénégalais yi feeg wàññoo dund gi noppi fee jëlee ngóor jigéen du tax ñu woteel la l'observateur na ko pourtant nag fi mu toll ni Macky Sall fa xeex ba ñàkkante lépp ngir wote député yi moo am ci ndam yow seetal ci alxamis ji ji fa fas yéene dajale ay kàngaamam ci wàllu politique ca palem ba lépp ngir nas seeni pexe wal fajiri yéene kaay na ko faala ci yokkal yeneen pexe yi nga xam ne Macky Sall ko lal ngir am ndam ci wate yii xam nga mooy lanam jëfandikoo parrainage bii ngir bloqué mboolem candidat bu ñu yaakaar ne soo ñëwee fa nga leen di andil jafe-jafe ñu ne la xalaa ma ndiir bàjjo xalaa xalaa doo fi bokkee soo waxee lu tax ñu ne la fa ngaa forkoloog fa ngaa am doublon sa parrainage bi baaxut ak ndax ñoom bennoo fi mu toll nii liñ am ci parrainage bi yéet fa bëri ba ëpp source ay yéen kaay mel ni ku naan ko Macky Sall yow nag faa la jàqal de am na coalition bu ñuy taxawal du baax ci yow de coalition rebelle lañ tudd ay ponkal ñoo ca nekk bokk na ca car Thierno Alassane Sall Thierno Bokum Abdourahmane juuf ba nekkoon réew mi Cheikh Oumar Sy Ibrahima Amidou Dem l'observateur na ko faa lay wax secret yu nekk ca coalition bu bees boobu ñu taxawal boo moytu coalition bala moo judd sax ci lay dee tas ah ndax ñoom ñi na ngay rayante ñoom neen ku nekk na maay jiitu surtout diggante docteur Abdourahmane Diouf ak Thierno Sall ku nekk naan maay jiite ñu ne déete waay sëriñ buub tegal ngir ànd ak ñoom ci wote député yi ak ñàkk ànd ak ñoom lépp leeral na ko ak kaaw Boubacar Camara ñoo ñuy seen coalition bi dafa am problème de ñeneen ñu am problème mooy waa yeewi askan wi ñoom Ousmane Sonko seen coalition ba ñoom it fi mu toll ni ma ngay teppeeku xar ak tasaaroo fa la jëm buñ ca waxut de ah, yow seetal tête de liste départementale bu Pastef ba ñu tànn moo jur coow ca seen biir ki tànn waa yeewi askan wi ngir amal fa ralliement dem ànd ak ñoom mooy Cheikh Abdou Bara Dolli ba nekkoon bokk gis-gis source a moo ñu xamal ne yëfee sotteegu de ah waa PUR ñoo bañ ne sox soxlawuñ Cheikh Bara Dolly te du bokk yeewi fañ ko teg nag ñu ne si ay jamono fa fee yëkkati woon kaddu moom Cheikh Abdou Bara Dolly moomu kaddu yu ñagas yu doy waar jëmale ko ci seen sëriñ ba muy sëriñ Moustapha Sy loolu nag fa la na naqari ba léegi moo tax ñu taxaw ca buntu yeewi na ko xalaa ma ndir bàjjo xalaa xalaa doo fi dugg soxlawuñ la yéen a bi na waaye hée def leen dànk de ku lamb yaa tay daagul fañ la nobee Cheikh Abdou Bara Dolly moomu du xam lu leen doy de ah Abdoulaye Wade presque wan na leen gannaaw ba ñu nga ne defar nañ seen directoire de campagne waaye ñoom Waré Sarr ñañ àndal fa ñoo fas yéene ñàkkanteeg Macky Sall de ne nañ ko far force fara force doole mbaam Karim Wade fay bokk ci wote yi ba ca 2024 neex naqari nag lu ngeen ci bañu nag bañuñ ko ci <laughs> leer lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne njiitëram Macky Sall fa ramassé xuuf paa ay milliards yu du xaaj jeex ñetti téeméer ak faneeru milliards ndax fa ñoo wali del Sénégal sukkukom bi xaalis boobu nag fañ koo war a dugal ci wàllu autoroute à péage ba ak port bu ndaayaan li ni mel mooy marché bu gën a rëy ci réew yi ñu wër Sénégal am na ko le quotidien yéen a kaay dëggal ko ne finance islamique sukku koor bu ñetti téeméer ak faneeru milliards di koppar yoo xam ne fañ koy dugal ci wàllu investir port bu ndaayaan ak autoroute bi bés bi yéen a kaay di ñu xamal njeextali korite gi fa nar a muur li ñuy wax fête du travail xam nga premier mai lay am dimanche ba tax njiitëram Macky Sall jafe-jafe liggéeykat yi ñetti fan ci weeru mai lañ ko koy jox syndicaliste yi ñoom soppi ci ab doxalin la waree journal moom di ñu xamal ne mbiru astu soxna soxna sa faatu woon ba mu waree wasin ca hôpital bu Louga ñeenti sage-femme yañ ca jàppoon tëj kaso ndax càggante ci nit ku nekk ci diggante dund ak dee yéen bi nee na sage-femme na ko xam nga lu taxam fa ñoo dàq seen atte ba ba juróomi fan ci weeru mai ka gañewaat direct news moo ñu ko xamal tàggat yaram Liverpool moo jàpp Villarreal di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñaari bal ci dara saajo Sadio Mané lakkatina caax ya ba tax stade yéen a kaay ne Sadio ñam xàndal jege nañ lool final ba record yéen a kaay na ko Sadio fi mu toll ni tolloon na ak dorog Drogba ci dugalu biiwu Ligue des Champions Samir Nasri ne ballon d'oru ren bi bu ñu waxantee dëgg saajo maane ko war a jël wala Benzema wala De Bruyne bés bi yéen a kaay na ko Sadio daal moom mi ngi ci course bi moom ndax dugalaat na démb xamal ne xale bu jigéen boroom juróom-ñetti at ya Anta Njaay ma ñu faatoon ca kër gañ doon tabax te yeggut ca diwaanu Bargny ka ko rey yoon teg na ko loxo ba Bala tudd ab xale bu góor la ñu gën koo xam ci Momo tailleur la fa xoo benn soxna su sant mbuub na ko kaay ma nettali la sama gel bi màgget fa maa nar a bàyyi nee na léegi nañ dajee ca kër gu yeggut ga léegi soxna sa ba muy dem mu ànd ak Anta Njaay xale bu jigéen bi naka la ko Mamadou Ba ba di ko a source ay yéene kaay moom di ñu xamal ne benn jàngkatu diine fa wan na loo lor benn xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom-ñeent ba pare jënd ab garab comprimé ngir yàq xëmb ba ñu mujj teg ko loxo bañ ko laajee nag mu ne dëgg la faa bëggoon xale bu jigéen bi nattu dal ma ci ma dem ci sama benn xarit boo xam ne fay jaay pharmacie Omar la tudd mu jaay ma médicament bi garab gi juróomi junne la ma ko jaayee takke dere dem teg loxo Omar laaj ko mu ne leen dëgg la garab gi ma ko jaay meso jaa la tudd ñaat téeméer lay jar ak juróom benn dërëm ñaat téeméer 1034 francs waaye man 25 000 ko ko jaayee ndax fa tolloon diggante ma ni tamit tollu diggante ndax sama soxna fa amoon doom bi ma koy jaay nag sama patron pharmacie bi yëgut ko maa génn ba ca biti jox ko ko mu ngoog nag nopp dalooti na